Euh, ba tey euh, ñu ngi ànd ak 221 euh, TV la chaîne de l'indicatif moom la ñu àndal nee naa la dama ñëw fii nag xam naa ne li ma mën lépp naa ko parce que naari instant yi ñoo may xëccoo ku ne naan ma Diba Saliou ñëwal sama boutique ku ne naan ma Diba Saliou ñëwal sama boutique mais damay leen di dugal ci boutique original yi boutique original yi foofu laa leen di dugal ah léegi nañ leen dem hello how are you and good yeah Euh, dugg nañ ci boutique parfum original original high class new model boutique bi moom képp ku bëgg parfum bu baax parfum de kado ah ci boutique bii ngay ñëw parfum yi gaar ok let me yee alhamin baa ngi ni parfum bi alhamin la original parfum la original ñoom nii la ñuy def di la ko wan ci ci ci livre bi parfum yi baax give give give wan Sénégal no understand yeah look ay original parfum gis nga gis ngeen parfum yaa ngi ne Dubai original original en plus good price good price price bu baax nga dem meilleur parfum ba tey day jaay cuuraay fi ñu ñëw boo leen gisee yeah is good yeah waaw bii moom dafa meilleur bii dafa meilleur very very very xaaral ma xaaral ma laalal sama caméraman à tout ma ni damay laal di laalal sama caméraman borom 221 TV la chaine de l'indicatif voilà parfum yu maire yaa ngi nii boo bëggee parfum ah da ngay ñëw ci boutique bi ba tey su ma neexee damay toog tegale samay tànk ah wan ne ne boutique bi ma ñëw boutique ku high class la high class la ah bu baax bi fii la hmm? képp ku bëgg parfum bu baax rek tout le monde partout dans le monde Sénégal Euh, Gambie Mali all yéen ñëpp mën ngeen a ñëw all Africa come and is up in Dubai all Africa come is up in Dubai ah, nee naa dama ñëw Dubai ku ne xam na ne télé boo ko indee da nga war a fay ay autorisation mais instant bi naari ñoo may xëccoo ku ne naan ma diva ñëwal sama shop diva ñëwal sama shop macha allah boutique bu baax a baa ngi ni parfumerie ku ci bëgg rek mën nga kaam euh, your shop after you take euh, your number. After tomorrow, I publish in television, okay? Mm -hmm. Tomorrow morning, I come back direct live TikTok. Okay, merci beaucoup. Uh, morning, yeah. Morning. At 8.30? Uh, 8.30. Okay, good. Uh, and 3, no good? 2 and 3 uh, my country Philippines. No problem. Okay, okay. Tomorrow I come. Thank you. ñëwaloon naa ci boutique parfum ba tey damay génn fii ci dem ci beneen ah. ok merci beaucoup tomorrow ay come back morning ok inshallah voilà voilà euh, ñu ngi Dubai ku gis xam ne nekk ñu Sénégal ñu ngi Dubai euh, pour wënal leen yenn boutique yu baax yi du ñu mën a dugg fépp ndax ndax instant bi naar yi ñoo ñoo koy xëccoo instant bi naar yi ñooy xëcco affaire yi man moomatuma ko man moomatuma ko instant bi naar yee koy xëccoo ah léegi nañ leen dem nañ leen dem beneen shop ba nañ leen dem fii ba tey boutique bi ma duggoon parfum de classe la parfum yu cher de classe mais doole yamul da ngay gis ku mën a jënd parfum cinquante mille gis ko mën a jënd quarante mille mais am na ñoo xam ne doole yamul parfum cinq mille lañ am wala dix mille ah kon nag lépp dama leen koy wan voilà nañ dugg ci beneen shop bi nañ dugg ci beneen shop bi hello how are you and good ça na ngeen def ci parles wolof ok alhamdulilah voilà ba tey dugaat nañ ci beneen boutique boo xam ne eh, parfum la let me see is parfum ah ok yeah yeah it's very nice it's good voilà xoolal parfum yi ba tey parfum yi dafa meilleur xeeti parfum yoo xam ne teg échantillon ay look échantillon parfum yu meilleur yoo xam ne moom de taluma woon sax échantillon ndax xool dama sonn parfum yu meilleur yoo xamante ne ni euh, yes it's yu neex ah yoo xamante ne ni xaaral ma bégal sama bopp ndax man Dubaay moom su ma xëyee ba sangu du ma xeeñ parfum damay xëy dugg ci boutique yi parfum ba neex ñibbi sama kër hmm? yeah it's very good it's very good voilà kaa leen ma nañ leen dem ba yi ay parfum de classe la original is new model yi parfum si am na ci ah yu am na ci parfum yi nekk parfum góor ak jigéen half men parfum men for men we have for let me see Armani give me voilà bi moom si la si ku ne xam na ne parfum original la xale yi xam nañ ko si moom original la boutique bii la am léegi nag ku ci bëgg da ngay euh, woote euh, def sa commande dugal acompte bi après ñu indi la ko ba Sénégal nga soog a fay xanaa neex na give me parfum for men. and for give me one for men voilà mu jox parfum góor yi ba tey ngeen bégal seen alaaji ngeen bégal seen alaaji parfum yi dafa meilleur. waaw neex na de. ah ok ah, I will give you one. yeah this is our brand. yeah which you yee bii dafa neex bi parfum góor la ku ñëw ma defal la samay mbokk waaw parfum góor la bii tamit ah ok ba tey nee may woon parfum pour bopp ak yooyu mais lii nga teg ko sa coiffeuse rek dafa meilleur look Uh, how many piece? 300? English. How many? How many One piece. No, this one piece 300 dirham. One piece perfume, one piece uh, hair mist, two piece. Yeah. Voila. This uh, I understand. I understand. yes voilà dañ koy def bu mag ak bu ndaw hmm, sama gars yi man lañ bëgg de waaye man ñoom laa bëgg nax nee naa lépp lu ma am naari la ah euh, kon nag euh, du fii dem ku ne xam na ne je voyage partout dans le monde yàlla teral na ma Serigne Saliou taal na ma ok this is for lady same same is lady is man voilà parfum yaa ngi nii nag képp ku ci bëgg rek mën nga woote ñu indil la ci Diva Saliou taalibe Serigne Saliou tomorrow I come back a live direct TikTok ok uh, uh, it's télévision sénégalaise look yeah tomorrow morning I come ok yeah yeah allez thank you ok ok nañ leen dem parce que fu ne fu ñu dugg rek ñoom ñoo ñu gën a bëgg ñoo ñu gën a yaakaar mais fu ñu bëgg rek five minutes la am ñu génn dem ci bi ci des pour wan leen li fi ne yëpp mënuñu leen koo wan mais ñu wan leen lenn ci li nekk ci Dubaï ah ñu ànd ak 221 euh, TV la chaine de l'indicatif télé bi xale yi bëgg moom la ñu àndal euh, ñëw ba Dubaï pour di leen wan yenn yi nga xamante ne ni moom lañ fiy wane. voilà kon dañuy dal di génn fii jàll ci beneen boutique ah dañuy jàll ci beneen boutique ah. wanaat leen leneen lu fa nekk xale yaa ngi may naan diva jàllaabe lañ bëgg diva jàllaabe mais dañuy dem ci jàllaabe dañuy dem aussi ci yeneen boutique yi ah dinañ dem ci jàllaabe dinañ dem ci jàllaabe dinañ dem aussi ci leneen ak leneen ak leneen mais dañuy def one by one rek pour affaire yi mën a leer ah ñu ànd ci ak 221 TV la chaîne de l'indicatif télé bi xale yi bëgg tere bi ndaw ñu bëgg tere bi ma Diba Sané comme yow àddinaa la bëgg ndax Serigne Saliou dalaa def ci xol jaam ñi del liggéey ak 221 TV merci beaucoup ngeen xaar ñu léegi ci beneen boutique ak yeneen article yu ñu leen di woon merci je vous love merci